إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل دامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير أيها المسلمون أيها المسلمون من غير الحجاج أمامكم فرصة هذه الأيام ألا وهي عشر ذي الحجة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها ما من أيام الأمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري فاتهدوا بكل طاعة من صيام وصدقة ونوافل وقراءة القرآن وذكر والدواء وكان ابن عمر ابن وأبي هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما رواه البخاري وكان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل يوم يوم عرفة وأفضل دعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما أقول أنا ونبيون من بع من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واعلموا عباد الله أن الألوهية سنة واجبة على أهل كل بيت مسلم قدر أهلها عليها وذلك لقوله تعالى فصل لربك وانحر وقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بشاة عنه وعن أهل بيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من إحراقه دما قال تعالى لن ينال الله لهومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين ay yéen mbokk jullit yi ñu ngi sant sunu boroom jalla wa ala sunu boroom la mu yeeyoo ci ñun moo ñu sant ko ci jamonoy xéewal sant ko ci jamonoy tiis ñu ngi koy gërëm di ko jéggulu di ko ñaan mu julli ca sunu soppe ba yonentam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ni yàlla yeyoo ñu ragal ko ko kenn ci yéen bu mu dee mukk lu dul fekk ne mi ngi jébbalul yàlla ci léppam ca xaritam bu tedd ba di ibrahima alayhi salaam mu ne man maa ko dalal ca palaasu makka ne ko laabalal sama néeg bi ngir ñi fi nar a ñëw di ko wër di fi rukkoo ak a sujuud ca nga woote nit ñi ci acc dañ li dikkal jóge fu sori ci xur wu nekk ak tund wu nekk ngiree teewa ay ngëneel yoo xam ne ñeel na leen waaye tudd yàlla ci ay bis yoo xam ne bis ñu xam la ca la leen yàlla wërsëgal ci bàyyuma yi bis yooyu nga xam ne mooy ah la borom bi di wax naan fi ayaamin maalumaat la ka borom xam-xam yi firi mooy bis yi nga xam ne ci la ñu nekk mooy fukki fan yu ubbi tabaski xam leen ne at mi su nekkee ñetti téeméeri bis ak nangam fukki fan ya ca gën mooy yii ñuy dund nii mooy li ubbi tabaski su ko defee xam leen ne sunu borom ñee aji ji màkka day lam leen dencal ci ngëneel kenn xamul nu mu toll waaye yéen ñi ajuwul it yàlla ubbil na leen beneen bunt te mooy buntu fukki fan yi lu ngeen man ci lu baax ngeen def ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na wax ak sahaaba yi ne day am na fukki fan yu ubbi tabaski amul kenn ku mën a jëf beneen jëf ci bis bu mu mën a doon yàlla gërëm jëf jooju lu mel ne lañ ko jëfal ci fukki fan yi ay tuyaaba lu mu gën a tuuti tuuti boo ko defee ci fukki fan yi moo gën a màgg ca yàlla tuyaaba lu mu rëy rëy rëy bu dee ci yeneen fukki fan budul bi bokkoon na lu yeneen bi màggal lool gannaaw ba ko yàlla màggalee mooy jihaat ci yoonu yàlla yóbbu sa bakkan yóbbu sa alal génn sa sa réew sunu ñu ne ko waaw ñiy jihaat ci yoonu yàlla nag mu ne même kiy jihaat ci yoonu yàlla ci beneen bis bu dul fukki fan yi tuyaaba ja nga defal yàlla ci fukki fan yi moo gën a màgg xanaa lu dul koo xam ne dafa des ak alalam bakkanam des ak alalam kooku rek la kenn mënta dab mbokk jurit loolu mbokk xéewal lu gu réy la goo xam ne yàlla miy gënale lu ko soob yàlla miy gënale ci waxtu wi ci place yi yàlla moomu moo gënale woon jamono sahaaba ya kenn mun leen a dabata ba ila yawmi diin abadan loo mën a liggéeyal yàlla mënoo dab sahaaba yi noo nit la wute ay place noo nit la wute ay waxtu gënale ko bokk na fukki waxtu yi nga xam ne nii ci la ñu nekk ngalla waaye nañu góorgóorlu suñu kemtalal kattan yow mi mën a am bis yoo ca woor wooral yow mi mën a génn ay sarax ngalla waaye génn ci ay sarax barilal def ay naafila ci julli barilal jàng téereb yàlla bi di alquran barilal lool loo xam ne nii da nga ca nekk di ca tudd yàlla subhanahu wa taala ci zikr waaye barilal la nga xam ne da nga cay ñaan waaye it na nga ci yeesal la nga xam ne muy tub gu sell loolee bokk na ca jëf yi gën a baax yoo xam ne doomu aadama dana ko def ca mooy mu tuub la nga xamee ne mooy ay bakkaaram am na ci it loo xam ne moo ca gën a feeñ mooy baril màggal yàlla baril di wax allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah wallahu akbar gis nañu ne jamono day dem di soppeeku ba am na yu bari xëy na soo ko doon def sax ak tumuranke gam tumuranke nit ñi mën nañ laa féetale feneen waaye ku mel ni ibnu omar radiallahu anhu ak abi hurayra di sahaaba yonent bi nga xam ne ñépp xamoon nañ leen ci fukki fan yi dañ daan dem ca marché ba mooy place yi gën a sàggane yàlla ñuy tudd yàlla ca kaw ngiree nit ñi dégg leen fàttali ko tudd yàlla googee loolee mbokk albuxaari solo na ko bis yi ci nekk yépp a màgg waaye rawatina bisu juróom-ñeenteel bi bisu juróom-ñeenteel boobu nga xam ne mbokk mi ngi tombeeg altine jii di ñëw loolee yonent bi alei salaam nee na mooy bis bi gën ci at mi yépp bis bi gën ci at mi mooy bisu arafa daana waxit ne ñaan gi gën ci ñaan gi mooy ñaan goo ñaan bisu arafa mi ngi tombeeg altine jii di ñëw daana waxit li gën ci lu nit kiy ñaan maag yonent yi ma jiite woon yépp mooy ñu ne laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la muy firi mooy kenn yeyowul ñu jaamu ko ku dul yàlla moom rek bokkul ak nguuram gi kenn ñeel na ko nguur gi ñeel na ko sant ca moo am kàttan ci lépp loolu boo ko seetee du aw ñaan aw tagg la waaye kilifa dëgg soo ko bëggee ñaan da nga koy tagg soo ko taggee moo xam la gën ci yow mu defal la ko looloo tax nga la waaye nañ bëri loolu ci bisu bi nga xamee ni nii mooy bisu altine bi luñ ci man ci zikr ñu def ko waaye it yow góor yow jigéen yow mag yow ndaw ngal la waay maa ngi lay ñoox bisu altine bii di ñëw ngal la waay woor ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ni woor bi nga woor bisu arafa dana la baal bak yàlla dana la ci baal bàkkaari at mëne passé woon ak bàkkaari at mi nga nekk yépp loolee mbokk julit da ngay gis ne ngëneel mënu koo passé heure bu ma koy wax danaa fàttali père de famille kaay leen ñu ne la woon kaay woor benn bis boo xam ne ñaari at yi passé yépp facture yi nga fayoon ci ndox ak courant yépp dañ ko dajale delloo la ko loolee mbokk da ngay gis ne benn père de famille du sàgg na koor googu ca wallahi ñu delloo woon la facture ya nga fayoon yépp ñu dajale say bàkkaar yépp baal la ko moo ko gën kon nañu ñaax sunu bopp ñaax sunu njaboot ci altine jii di ñëw ñu def ko bisu koor waaye def ko bisu zikr waaye def ko bisu ñaan sunu yonente alayhi salaam mu ne amul benn bis boo xam ne yàlla dana ci goreel ay nit lu toll ne la muy goreel ca bisu arafa seytaane amul benn bis bu ko gën a naqari ci kaw suuf gannaaw bisu badr lu dul bisu arafa ndax la yàlla di jéggalee ak la yàlla di goreele doomu aadama yi ci sawara ay yow moo ko julit xamal ni doomu aadama dana tabbi aljanna xamul ban tuyaabu moo ko fa tabbal loole itamit moo tax nga war a góorgóorlu sa kemtalal kattan bunt yiw boo dégg nga daal di cay jéem a tabbi ngire yàlla subhanahu wa taala yërëmale ca su dee loolu passé na nañu xam ne itamit ñi ngi nii jubal li nga xam ne mooy tabaski tabaski ca mooy rey ab gàtt ca bisu fukkeel ba loolee mbokk nekk na loo xam ne nii la gën a néew lañ cay wax mooy sunna bu dëgër la sunna bu dëgër la ñeel kan ndax ñeel jullit bépp déedéet mooy ñeel waa kër gépp këru jullit gépp suñ ko mënee war nañu faa rey la nga xam ne mooy xar daa safaanoo ak koor gi ñu génn koor gi ñu génn li ñuy li ñuy tudde zakatul fitre daa war góor ak jigéen mag ak ndaw amaa tabaski kan la war mooy waa kër ga loolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne nekkoon nag ay soxnaam soxna ya daawuñu tabaski moom moo daan rey la nga xam ne mooy tabaskeem loolu da ngay gis ne la nga xam ne mooy tegtal ba nga xam ne moo ca nekk sunu borom yàlla nee na fa salli li rabbika wanhar na nga julil sa borom ca nga rendi la ka borom xam-xam yi firee mooy julli leen bisu tabaski wi te nga rendi la nga xam ne moom mooy seeni xar loolu moo tax ba bisu tabaski boo reyee sa xar avant ngay julli boo reyoon téeméeri xarit amoo tabaski amma boo jullee ba pare doo ko rey su boobaa moom am nga li nga xam ne mooy tabaski waaye itamit léeg-léeg coono dal ay nit lool kër gi ku ne bëgg a rey xar abi ayub al ansaari day daana wax ne ca jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day daan nañu fexe ba kër gu nekk ñu rey fa la nga xam ne moom mooy benn xar suñ ko reyee rek waa kër gépp bokk nañ ca la nga xamee ne mooy tuyaaba boobu xar moomu nga xam ne yonent bi alayhi salaam nee na lii nga xam ne mooy bisi ren di tabaski amul benn tuyaaba bu yàlla gën a bëgg ci lu mel ne daa di koy tuural deret masalan nga reyoon benn xar ci sa kemtaleel kattan ak xar ba lu mu néew néew néew njëg moo gënal yàlla nga xooloon téeméeru njëg ga saraxe ko deret di ngay tuur loolu mooy la gënal yàlla waaye mbokk jullit xam leen sunu borom yàlla nee na man day deret ji du yegsi ci man waaye yàpp wi du yegsi ci man la yegsi ci man mooy ragal yàlla gi nekk seen biir xol looloo tax ba yow doomu aadama tabaski googu nanga ko fonk fonk ko waaye bu ca puukarewu mooy yow bu dee ne xar mi nga xam ne mat na tabaski seet nañu ko ba ne tey jii ku amoon quarante mille da nga am xat mu xar mu mat sëkk tabaski ngal la waay jëndal sa xarum quarante mille wala sa xarum trente mille te sa xel dal ci ne ka nga koy reyal soxlawul deret ji soxlawul yàpp wi waaye bu dee yàlla yaatal na sa wërsëg nga dem ba jënd xarum deux cent mille it na sa xel dal ci ka nga xam ne ki nga koy lebal kat mooy ka nga xam ne moo mën a fay su ko defee rafetal ga rek la yàlla di bëgg mooy sellal ga kenn du wax ne waa ji daa jël xar mu rëy ñu ne day puukarewu abadan xar ma lu mu rëy rëy tuyaaba ji day gën a rëy su dee ne sa yéene sell na waaye xar ma lu mu tuuti tuuti it pay ga dana màgg ci yàlla su dee ne sa yéene sell na ngal la waaye nañ bàyyi xel ci loolu yow mi yàlla subhanahu wa taala nattoo ba nga xamee ne nii tabaski jot na wër nga ba sonn amoo loo rey na sa xel dal ci ne tuyaa bay tabaski am nga ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo juloon ñaari kuuy daa di rey benn ba daa di ne yàlla kii day ñeel na muhammad ak njabootu muhammad waaye jël beneen ba daa di ne yàlla kii day reyal naa ko képp ko amul tabaski ci sama xeet bi ba ilaa yawmi diin loolee muy wone ne ndekete du yàpp wa la yàlla bëgg waaye wala deret ja la yàlla bëgg ndax xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yawm al qiyaama yàlla rek a xam ñaata milliards la ñuy doon waaye képp koo xamee ni ni yàlla dogal na amoo loo tabaske xamal ne yoonu tabaski moom am nga ko tabaski googee bëgg nañ mu mat la muy mate boroom xam-xam yi uute nañ ca la gën daal fexeel ba xar ma am at sëkk at moo xam ne mat na sëkk donte ne am na ñoo xam ne ne nañ bu rombee juróom benn weer baax na waaye soo mënoon a am bu am at mooy la gën ngir nga mucc ca ixtilaaf ba nga xamee ne am na ci loola am na ci it ay mbir yu yonent bi alayhi salaam tere woon ñu rey ko ci tabaski ba nga xamee ne moo ci gën a feeñ mooy xarma bu mu doon xarmu patt xaru benn bët suñ nee xaru benn bët baaxul xaru bu gumba jarul ñuy wax xarma bu mu doon lafañ boo xam ne tànk ba daa wi ñaaru ba ku ko gis xam ne kii kat xarn la mu lafañ munta dox loolee baaxul xarma bu mu doon xar mu feebar xar mu feebar baaxul ci tabaski waaye bu mu doon it xar mu loof bali xale yi di wax naan rey mu dee reyul mu dee loolu it na ngeen xam ne ba tey baaxul ci tabaski amaa bu dee loolu wéy na xam leen ne incha allah la ca des yàlla subhanahu wa taala mën na la koo baal gannaaw ba itamit yonent bi alayhi salaam daanañu ñaax ci ne kenn ci yéen day su dee ne daa bëggoon a tabaski yàlla dogal weeru zulxijja feeñ mooy weeru tabaski bii ñu nekk ngal la waay bu mu laalati ay weyam bu mu laalati karawam ay bu mu watooti bu mu daggooti ay weyam ba baa muy rey tabaskeem koo xam ne defen nga ko ci biir weer yu xamoo ko loolee dara nekku ci waaye ngal la waay bi nga ko déggee tey bul watooti bul daggati say we ba baa ñuy rey xaru tabaski ba su ko defee nga doog a ah def loolee nga xam ne moom nga bëgg a def mbokk lii mooy benn tënk bu ndaw ci lii nga xam ne ñoo ngi ko dëgmal di ñaan yàlla na ko yàlla yegsil ci ñun ci jàmm te lépp luy xéewal mu dëppale ñu ca te it baal ñu ca sunuy bakkaar wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain qala taala ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون عباد الله أمد الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعيد الفطر وعيد النحر يتوسؤون فيها بالمباحات ويتقربون إلى ربهم بالطاعات شكرا لله تعالى على ما أنعم عليهم به بالمباحات ويتقربون إلى ربهم بالطاعات شكرا لله تعالى على ما أنعم عليهم من أداء المناسك وتقرب ببهيمة الأنعام في عيد الأضحى وشرع لهم الاجتماع للصلاة في هذه العيدين ليتعارفوا ويتواصلوا ويهنئ بعضهم بعضا فتهابوا ويتآلفوا وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الأواتق وزوات الخدور وحمر العيد أن يعتزلن مصلى المسلمين رواه البخاري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن هم عليكم فاقدروا له اختلف العلماء فيما إذا رؤي الحلال في بلد فهل يلزم الناس جميعا فهل يلزم الناس جميعا أم لكل بلد رؤيتهم وذهب بعضهم إلى تفصيل وهو أنه إذا اختلفت المطالع فلكل قوم حكم مطلعهم أي المقجلين ñi yeesalaat di sant sunu borom mi nga xam ne julit du tay ci di ko sant di ko ñaan mu julli ci sunu yonente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom boobu nee na bépp xeet day defal naa ko la nga xam ne mooy façon jaami wu nu yàlla ngiree muy mën a sant yàlla di màggal yàlla ca lam koy reyal ca lañu yàlla wërsëgal ci juru kër gi xam leen ne seen yàlla benn yàlla la yéen ñépp na ngeen ko jébbalul ca nga bégalal ma ñi nga xam ne seen xol yi day toroxlu buñ tuddee yàlla mu tiit di muñ la nga xam ne mooy seeni nattu ca la ma leen wërsëgal ñu cay génn di joxe mbokk sunu borom moo ñu wax loolu xam leen ne na mu ko defale woon xeet yi jiitu woon noonu la ko defale sunu xeet bi mooy wërsëgal ñu ñaari feet yoo xam ne amul bu ko ñetteel mbokk xam leen ne jullit ñaari feet la am feetu korité feetu tabaski beneen bu mu mën a doon daa dab lislaam waaye lislaam xamu ko woon bu ko defee feet yooyu sunu borom may nañu ko ñu daal ciy nekk di ci yaatu yàlla moo ñu bind xam ne ne doomu aadama léeg-léeg dafa bëgg di wone mbégteem di defuluwu ni ko xale yi di waxe loolee dafa doon ak yaatu bu koy beesalaat ci façon jaamu yàlla yi nga xam ne te la saxoon di ko def loolu moo taxoon ba su doon te ne sax jikko yu yàquwuñu jigéen ñi mën nañoo daje yëkkati seen kàddu ca kaw sar xolle wala way seeni way tëgg seeni ndënd loolu dana dagan ci jamonoy iit dana dagan ci jamonoy céet loolu kon mi ngi noonu sunu borom bëgg ñu yaatu ci ca wàllu lekk yaag naan ya ca wàllu la nga xam ne mooy en en wax yu neex yu dagan ya gannaaw ba it ñu jege seen boroom ci topp ko sant ko ca la nga xam ne wërsëgal na ko ci ñoom ci la nga xamee ni nii moom mooy bàyyi ma yooyu nga xam ne dañ ko koy reyal rawatina ca la nga xam ne mooy feet gi ñu jëm di feetu tabaski noonu it la sunu boroom tëreele ne jullit ñi nañ daje ci bis bu mel noonu daa di taxawal la nga xam ne muy julli julli googu nga xam ne moom la ñu ubbee feet ga mooy taxaw sunu kanam boroom bakk ko ñaan ko daa di xamante la nga xamee ni nii moom mooy seen diggante suñu paree ku nekk ñaanal sa moroom ku ne baalu sa moroom loolee jur ak cofeel ci ñoom waaye jur ak booloo goo xam ne day boole mbooloom jullit ñi wane te la nga xam ne mooy ah teddaange lislaam waaye wane te la nga xam ne mooy dooleeg lislaam loolu tax ba yeneen ci baale salaam daan ñaax na ko benn saxaaba bu jigéen bu daan netti ne ñi koy wax Umu Atiya mu ne yeneen ci baale salaam day waxuma daana wax ñun jigéen ñi mag ñu ñu génn waaye daana wax nañ génn jànq jëpp nañ dem ca julleekaay ba même jànq ji nga xam ne dañoo ànd ak règle nañ dem bu ñu demee ñu toog ca gannaaw ngiree lan ngiree ñu mën a fekkee kabbar yi jullit yi kabbar ñu ànd ak ñoom di kabbar ñaan yi jullit yi ñaan ñu ànd ak ñoom di ñaan loolu it mbokk mu lay jàngal ni jigéen xatta bu ànd ak baax terewuñ ko la nga xam ne muy zikrullah te it place la boo xam ne nii place wàcc yërmande la loolu moo tax ñu ne xattaa ña nga xam ne julliwuñu sax nañ dem ca place ca place boobee looloo tax ba mbokk jullit soo dellu woon ñoom ci borom xam-xam yi dañu am ixtilaaf ci julli googu farata la sunna la lan la mën a doon bokk na la ca gën a diggu doomu lañ ca wax mooy na am du farata waaye sunnatul mu akkada la mooy sunna la bu dëgër boo xam ne yellul ci jullit amoo benn ngant ngay bañ a dem di julli ji abadan loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax ca ne heure boo xamee ni nii nit ñi julli nañ ba tasaaroo loolee dañuy tasaaroo njéggalu yàlla ak yërmande yàlla subhanahu wa taala ñu góorgóorlu bu dee yàlla dogal na ñuy dem ci jullikaay boobee war nañoo sangu comme ni ñuy sangoo bu ñuy dem juma ca it ñu góorgóorlu xam ne yonent bi alayhi salaam bokkoon na ci sunnaam bu dee bisu koor la balaa génn këram dem di julli ji fokk dana lekk dara waaye bu dee bisu tabaski su ma saan xëy du lekk dara lam daan jëkk a lekk ci bisu keroog mooy loo xam ne daa jóge ca xar ba nga xam ne moom la rey loolee di koor goo xam ne nii yaakaar naa góor ak jigéen ñépp mën nañ ko lii mbokk moom mooy la nga xam ne moom la ñu jublu di tabaski boobu la nga xam ne mooy natt ba ñu daan dalit dalaat nañu mbokk julit moo dina xam ngeen ne ah sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam mas na wax ak sahaaba yi ne leen bu dee koora wala kore xool leen weer bi su ngeen ko gisee woor leen bu ngeen ko gisee woru leen bu dee ne gisu leen ko ngeen matal fanweer loolee nekk ca koor moo nekk ca tabaski léegi nag boroom xam-xam yi am nañu wuute yonent bi nee na bu ngeen ko gisee woor leen ndax adduna bi yépp lay waxal am ñu ne aha kay adduna bi yépp lay waxal fu ñu dégg ne weer wi feeñ na ñépp ñoo war a ànd woorandoo bu dee tabaski ñépp war a àndandoo bis buñ koy def am ñeneen ñu ne déedéet waa dëkk bu nekk ñoom ñooy xool ba xam daañ gis am duñu gis loolee da ngay gis tey loolu mooy la ëpp lu doomu aadama yi doxal tey ci kaw suuf xataa boo demoon dëkk bu mel ne Makka sax dañ naan gisuñu ko ci Makka ak li ko wër wala gis nañ ko ci Makka loolee mooy la ëpp la ñuy jëfe am na ñoo xam ne dañ caa digg doomu ñu ne déedéet région bu nekk ñoo war a xool kii ba xam gis nañ comme déet masalan Sénégal dëkk yi nga xam ne wër na ko yépp nañ xool fuñ ko fi gis da leen di engagé bu dee dëkk yi ko wër yépp gisuñu ko loolee kon koor ga du leen engagé tabaski ngay duñ ca bokk loolee yow ndaw mi gëstu sunna xamal ne loolu mooy tànneefu la nga xamee ne mooy ibnu taymiya rahimahullah loolu ba nga xamee ne ni am na ci uute bu màgg boobu gis nañu tey mooy li am moo di ne ne dëkk yépp da ngay gis ne da ngay toppatoo seeni gisin ba da ngay dégg Saudiya wari nañu waaye Yemen gi sës ci moom wariwul Iran day tabaski nañu waaye Irak gi sës ci moom tabaskiwul loolu moo ñëw ba suñu réew yi loolu mbokk di mbir moo xam ne mu tiis la mu naqari la tey bu ñu dellu woon ci gisuñu borom xam-xam yi dund ak ñun te ñuy gëstu xadis xam ne bokk nañu ci mujjoon ka ca gën a màgg kooku di sunu mbokk cheikh nasiruddin albani nasiruddin albani rahimahullah bokk na lu mu doon wax ca bu doon tane ne man damay tànn nit loolu lay tànn mooy la gënoon mooy àdduna bi yépp dëppoo ci ne bu weer wi feeñee ak fu mu mën a feeñee sawaun makka la wala washington na àdduna bi yépp ànd tënku ci ci koor ak korek tabaski loolu mooy la gën te it loolu mooy la nga xam ne moo waroon waaye mu ne maadaama lii sax na ci réew yi léegi la nga xamee ne moom lay ñaax nit ñi ku nekk waaye boo nekkee ci am réew bul nekk di wuute ak sa waa réew moomu maadaama ixtilaaf bi am na ba pare mënuñu ko daq bala ñoo wut beneen ixtilaaf ci biir ixtilaaf nga xam ne mag ñu njëkk ñi dañ daan wuute ci ay région weeri bi masaan feeñ waxuma Makka waaye Mali gii rek waa Sénégal duñ ko yëg boobee coono amul woon seen biir mais tey bi àdduna bi nekkee benn buul yow nga ne da ngay ànd ak dëkk sangam ci dëkk bi nga nekk wari wuñu wala tabaski wuñu dañuy gis ay nit ci benn kër kii rey xaram kii téye xaram kii woor kii wori ila axiri mu ne loolu day jur fitna boo xam ne la taxoon ñuy wax it te mooy jullit ñi ànd seen xol dëppoo seen xol booloo ñu mën a ñaanalante léegi contraire u it mooy am mooy dëkk yu bari tey soo demee fitna ba gën a rëy mooy jamono it la gën a metti ci ñoom mooy jamonoy kori wala jamonoy tabaski loolu nag mbokk mbir la boo xam ne dañ ko war a xeex ala kulli xaal mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa wax ak sahaaba ya ne leen ah xeex bu ñu war a xeex ak waa bani xurayza mu ne kenn ci yéen bu mu julli takkusaan bu doonte ne waa parcelle lay waxal yonent bi ne woon kenn ci yéen bu mu julli tàkkusaan lu dul naka jullee ji yëmbal saxaaba yi dajale seen armo di dem bañ demee dem ba yegg fa nga xamee ni nii mooy pikin ñi ngi gis ne jant baa ngi lang am ñu ne ah tàkkusaan a ngi waaju jot nu ñuy def am ñu ne ñun day yonent bi nee ne woon bu kenn ci yéen julli tàkkusaan lu dul naka jullee ji yëmbal kon ñun duñ julli fu dul yëmbal am ñeneen ñu ne déedéet yonent bi daa bëggoon ñu gaaw rek waaye duñu faat waxtu yàlla wi ñoom ñu taxaw julli ñette des ñoom dem ba yëmbal waxtu wi paase na ñu doog a julli bi yonent bi alayhi salaam ñëwee ñu wax ko ko yonent bi daa noppi saxalul kenn condamné wul kenn loolee yonent bi waxoon bu kenn jullee ji lu dul yëmbal loolu it la yonent bi wax ne bu ngeen ko gisee woor leen bu ngeen ko gisul woor leen fan la yem loolee borom xam-xam yi am ci juyoo loolu moo tax ba ngal la waay yow mi nekk ci am réew ixtilaaf boobu am ci ñun junni at bu mu tax nga wuute ak sa mbokkum jullit soo jëlee benn position jàpp ko moom mu gis beneen position ñaanal yàlla nangul ko nangul ko nangul la ca na yàlla nangula woon sahaaba ya ba yonent bi noppi condamné wu ci kenn loolu muy wone na it su seen biir laayee yàlla boole leen nangul yéen ñaar ñëpp nañ bàyyi xel ci loolu looloo tax tabaski gi nga xam ne moom la ñu jëm man day wax dëgg bu doon position sama bopp laay jàpp dama naan tey jii waa Màkka nee na ñoom gis nañ weer wi man bis ba waa Màkka tabaski lay tabaski waaye mbokk wax naa leen sànq li ma leen wax ci xutba bi gis nañu tey jii sunu Sénégal gi mboole seen ci li nga xam ne nekk na fi dëppoo nañ ci na àllarba la ñuy tabaski ci xam-xam yi ñu jotit mboolem réew yi ñu wër dëppoo nañ ci ne àllarba la ñuy tabaski même bu dee dañoo delloo ci mbooloo yi fi woote woon ñoom bokkuñu benn tarixa ñoom yonent bi rek ay seen sëriñ mbooloom yonent bi rek la ñuy woote woo muy alfalah ak ibadurahman ñoom ñépp dëppoo nañ ci na àllarba la ñuy tabaski loolu moo tax ñu nit ñu fas yéene ànd ak ñoom tabaski àllarba boobu loolee ngal la waay nañ ci dégg ne te àllarba lañ bëgg a tabaski maa ngi jéggalu mboolem ndaw ñi fiir yi xam ne wallahi gënuñu maa fiir waaye nañu xam ne doomu aadama yi boroom xam-xam yi ñu dëppool ci réew mi yépp position ba nga xamee ne jël nañu ko te jubluwuñ ci lu dul rafetal insha allah yàlla du ko neenal loolee nañ ci bàyyi xel bu baax su ko defee ñu ngi fas yéene taxawal julli tabaski gi fii àllarba insha allah boori neuf heures di ñaan góor ak jigéen mag ak ndaw ku man na ko teewe képp koo xam ne it gis nañuy julli talaata mu dem julli ji foofee ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla subhanahu wa taala nangul ko gannaaw ba it maa ngi dalal sa xel ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngëneel yam waxoon ci rey yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla yeggale ko ci ñun ci jàmm